Brasil, spectateur u Leral TV tey nag ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy Daaru Xuddus Daaru Xuddus nag dañ fee ñëw tey uniquement dans le cadre bernde yi nga xamante ni moom mooy màggal bi looloo tax tey ñu seet si famille Fall bëgg a ñoom laaj leen naka lañ dundee màggal gi seen préparatif yi yan xat-xat lañ am ci ci màggal gi yan coono ak ban euh, mbégte lañ am ci màggal gi moo tax tey ñu ngi dalal sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw soxna si ñu ngi lay fay. tur waaw man la Cheikh Modou Mboup sopp na bi tàggkatu Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Modou lan nga ci famille Faaleen bi. waaw famille Faaleen kóllëre laa ci ñoom soppe laa ci ñoom xarit laa ci ñoom lépp laa ci ñoom ndax euh, Pape Fall mi nga xam ne euh, mooy boroom kër gi di denc soxna Adama gay Adama. ba ñuy xale ba léegi ca primaire secondaire ba tey ji màkka sax ñoo ko demandoo en 2019 yàlla dogal tey ci suba dara jeexu fi bi fe la def fas yéene ko màggale bés bi ndax seexul Khadim dañu woon na ngeen ma jàppale ci santale ma sama borom te santale ma sama boroom nattoon na ko ba nattu ko ci gëléem ba ci ganaar kon fa tabaarakallaa dara jeexu fi waaye it bi nu xëyee def nañu loo xamante ni si mooy essentiel lu màggal gi muy wàcc ay kaamil jàngu xatmu bi def ko hadiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ñaanu ñaal bi euh, cheikhul xadim waaye it yoonu ñaan gi ñu jox ko seen jur wu baax wi El Hadj Omar Fall te génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm loolu daal laa xam ni fa tabaarakallaa sama relation la ak famille bi bi ñuy ndekki nag tàggal naa leen yonent bi ba seen xol bëgg ñoom ñëpp ñu kontaan am ci lu leen neex ah fa tabaarakallaahu man tam ma am ci lu ma neex ndax booy ñëwee ci bisub cheikhul xaddim di liggéeyal cheikhul xaddim tàggal ko yeneen ci defal nga ko lu mu gën a bëgg ndax lu am naka nga gisee cohésion bi nga xamante ni mooy euh, murit tijaan ñeneen ñi bokk ci yeneen tarixa bi presque ñëpp ñëw nañu wuy si yow mii di ma expliquer yaa ngi ma naan taggkatu yonent bi naka nga jàngatee cohésion boobu euh, bis ñëw ñu dajale leen ñoom ñëpp ci benn endroit defar ay bernde saafonte wàccee kaamil dem naka nga ko jàng ah fa tabarakallahu waxtasimu bi hamdillahi jamian wala yàlla dani boo booloo leen ci buumug yàlla gi te bu leen tàqalikoo munoo doon murit te doonoo jullit munoo doon xaadir te doonoo jullit munoo doon tijaan te doonoo jullit ak tarixa boo mën a doon jullit ngay doon d'abord pour soog ko doon te cheikhul xadim liggéey bi mu liggéeyal boromam bi mu ñëwee irham jami al wara la wax waxul irham jami al muridi waxul waxul xaadir waxul irham jami al wara ne yow yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na nga yërëm képp yàlla na ko yërëm te yërmande jooju mooy lii ñu nekke tey waaye euh, wax dëgg yàlla tarixa yi euh, fa tabaarakallaahu ñu nekk ñoo xamante ni si ay yat la ñu yor na ko alaaji Abdou waxee di ko xeex xeexe déedéet dañu war a tàppe xol yi loolu nag fa tabaarakallaahu mooy lii mooy murit yaa ngi fi tijaan yaa ngi fi man mii di wax ak yow exemple laa ci ndax man kër Cheikh na Cheikh Saad bu laa bokk waaw bokk ci kër Cheikh Dey Calaw Seck Gaynde Nguraan di ambassadeur kër ga te tey jii maa ngi ci ëttu Cheikhul Khadim di fi tagg yonent bi fii ba ginnaaw suba kon nag eh, loolu rek man rek doy naa ci exemple te mag ñi bindante woon nañ ci seen biir ay bind yoo xam ne moo dëgëruloon seen i alaaxa ndax Cheikh na Cheikh bu wax na ni bi Serigne Touba di dem géej ma addinahu ajalhum minhu nasara nee na leen sëñ maa ngi nii di dem géej bi muy dem jant la waaye bu ñëwee weer lay doon sëriñ tubaat bi mu koy tontu salaamun ala cheikhu siyuqi lazi lahul maqaama rafiu walay sa yumbaara maa ngi lay nuyu yow Cheikh na Cheikh Saad Bou yow nga xam ne ñun ñëpp yaay sunu sëriñ yaay cheikhu cheikh yay ndax yaay surtout Seydina Muhammad kon nag yooyu moo war a am ci diggante eh, eh, eh, ëttu diine yi wa badalil wujudi minka karimun min karimin abaa wal kuramaaw نخسب تنسم الأولى بأولاه خلدت النجوم الزوجا وسيدنا محمد وبدا للوجود مرقا كريم برم بريرو أربعة مدينة سيدنا محمد من كريم آباء والكرماء يلين تبي نصب تخصب الأولى بأولى خلدت نجوم الزوجاو kooku la sëriñ Bamba tagg ba am li mu am balay saburi sëriñ Mbàkke maaram rek ma mor jaara sëriñ ñëpp Cerno Birahim Mbàkke ndaamal daaru sëriñ ñëpp Seex Isa jënn borom jënnik lagal ñana ci barke Seex Isa yàlla yërëm nu jéggal ñu boole ñoog ña sëriñ bamba baax sëriñ bamba baax mooy sëriñub Seex Samba Jaara bay borom baax ma Samba Jaara ma gërëm sama sëriñ dama xorom way wi ma way ci waa këram mu am ngaram daam xorom sëriñ bamba baax mooy sëriñub Seex ma gay ma jëtti waawan sama ma njëkk toj daaroy mbaaxol ba tax nu bàyyi njàngaan ku lay réere daf ma laajul géy sangu sëriñ bamba baax sëriñ bamba baax mooy sëriñu biram jëbi nga jëngaay kor jëgg bàyyu lalla faal maam cheikh ibrahima faal daa bay maam sëy na bu njaay biram jëbi nga jëngaay cheikh ibra gore sëriñ bamba baax moo tawloo mouhamadul moustapha carloo mouhamadul mourtada bàyyu sëriñ sooy bu borom sariya bàyyu Cheikh Abdoulaye Laxaat borom belal bàyyu Cheikh Mamadou Lamine Baara mi ci gàdde gi bàyyu ki nga xam ne ñëpp am sëriñ waaye ku jaaxle moom ngay woo zalika fadlullahi yuti man yashaaw ana soppay bàyyu mbeen zalika fadlullahi yusi man yashaaw ana ñi bëgg bàyyu mbeen sëriñ Fàllu Mbàkke du xotti saatir du daw ku ko ku laaj bu may ëllëgee jël la sëriñ Bamba baax mooy baayu sëriñ Saaliw borom gotoog mbuur borom xel kom jaaga borom jàpp ndalak la gan borom dooka borom daaray njurul borom daaray umul xuraa borom daaray jannatul maxwa ku sop sëriñ Saaliw borom ñoo war gee janoon xay ga bi Bamba naan juruma doom sëriñ Saaliw taxul yaakaari Cheikh Béthio mam Saaliw li xaadati rujuri wan ma Saaliw bi tey bi wa jës mi wa inni cheikh saaliw Serigne Bamba baax mooy bàyyi Serigne Soybo bàyyi Serigne Soybo borom charia bàyyi Serigne Amsatu Mbàkke mu baax mi borom maam jaalibatul maraaxi bi Serigne Amsatu ya baax Serigne Amsatu yaa baax Serigne Amsatu yaa baax Bamba la fal yow Serigne Amsatu Bamba la fal yow Serigne Amsatu luy der bu ñuul ràññee na la Amsatu mboolem nit ñi ràññee nañ la yow sëriñ Amsatu bur wali yoo man mi maa la naw sëriñ Amsatu bi gaañi rab Mbàkke yaa ngi daw ku Bamba fal doo ku te moo taal ngay leer ba faw Mbàkke bala man maa la naw sëriñ Amsatu Mbàkke xoolal jëttu sanaar ba moo la way mboolem aajum yooyee yaa ko fay ba tax na leeram ya jolli tey mbàkke balaay sama la naw sëriñ am satu mbake yaa baax kuy mag ñëw ci moom ne ko dun bi doy mu daal di lay teral def la nga xàmmee ba foo mën la sëriñ am satu mbàkke yaa baax kuy ndaw te ñëw ci moom ne dun bi yaama ci doy mbàkke nga teg ko ci aw yoon ba fu mu jëm ñu ràññee ko ku weddi laajal ñi dem yem ci moom Serigne Amsatu Mbàkke yaa baax Samba nee na lam yabdu mislu mustawa Muhammad sirran wa jaaran fil baraya samadi maami Serigne Amsatu Mbàkke borom jaalibatul maraaxibi madal ana islaama wal kuframa wa bi nasixati fi kulli sama Serigne Bamba nee na bi zairi wal baatili man atawu lilahi fi kulli sama Serigne Bamba nee na xidmato alil uyubi wal istiqamatan wa safan wa abad maami sëriñ am satu neena libaana kawnul mustawa raysa li kulli man xarfa dulurusa maam sëriñ am satu makke neena kawnu nabiyal muntaxa muhammadin xayral waral muxtaara inda samadi sëriñ bamba neena balaa nga xam ne mooy waaje moom seyduna muhammad xoolal bu nu demee yombal xiyaam ca taxawaay bu yàgg ba kenn du fa mën dara ku dul moom sëriñ bamba neena yasuru rasulalaay الكاتب مولدي يدم لنا بزرا يفي خير مولدي وخاري إلهي كل دور بجاي من لو دار خاتي دون لمن ومن سيرين سرين بامبلين واي برانغا خمني مو قلت جامني وكل بيت وين حل البديو بي وجوده دون خير خلقك الأدمي محمد مصطفى المختار طه ابن عبد الله خير قريش لب لب مي يو سيدنا محمد yaay ay nu naimi naimi yow sayyiduna muhammad yaay ay nu ruyatu yow sayiduna muhammad yow mu ta abu ni tag fi zalatal xidami loolu la sëriñ am sa am ba tax na lépp lu mu am jox na ko xasida yi boo jëwee Tuuba boo ko seetee fekk ko muy jàng xasida boo demee bàyyi ko muy jàng xasida bu ñuy def journée xasida sëñ am sa segem borom jaali badul maraaxib damaa bëgg ko sopp sëriñ am sa def ni ñu màggal borom jaali badul maraaxib sëriñ am sa du borom jaali badul maraaxib mooy minal karimin atta وصف الكريم إلى عبد الكريم فكلا خالص الكرم أبدا السنايا في ليل البئم فما أدري أبرق بعد أم خصم مبتسمي ما ورجر وما در النسيم وما إفساخ خسر لدى نقل بفمي di la wax ne sëriñ Amsatu suñu sëriñ la suñu xarit la mun nañu wax ne ñoo bokk ndey waaw ndax ñun nag waa kër suñu soin bu lañ waaw ñun suñ laat soin bu aussi tam mooy suñu sëriñ ñii suñ am sa mooy suñu sëriñ tey jii luñ mën a am Touba am ko fii ginnaaw yàlla ak jëmi suñu soin bu la waaw moo dox ak tànkam ñëw ba fii rëddal sama bàyyi kër ne dama bëgg nga ñëw dëkk ci ak man boobu ñun xëy na juddooguñu sax wala ay tuut tànk lañu ku mel ni Pafal mi nekk sama xalifa moom xam na ci lu bari waaw waaye daal luñ mën a am suñ songe bula waaw moo ñuy daaneel am moo ko moom moo moom suñu njaboot moo moom suñu lépp ma ne ku may wax itam man wax ma Cheikh bu mag waaw mooy bàyyi sëñ am sax bi bokk ak sëñ Fallou Ndeye ak Baye ak sëñ Abdou samat kon man ñoo ma yar waaye nag sëñ bu mbir mépp moom la sëñ am sa boo amee li am sëñ Souhaïbou boo tax sëñ Fallou ko mag sëñ Abdou Samad ko mag waaye lii mu am ku ko xamoon diggante mag suñ sonyewu da nga xam ne lii mun ta ñàkk kon ñu ngi lay sant ci bu baax di la wax nag suñu sëriñ bi baax bi muy seex sonyewu di waajuru sëñ Abdou Samad di waajuru sëñ Abdou Lahad sonyewu bi nga xam ne ñun moom lañ yaakaar ñun tamit nga sànniñ suñ sonyewu ci ñaan waaw sëñ seex say mooy suñ xalifa moom waaw. ndeke booba sëriñ sooy bu mbàkke baax na mbégum jaam ñi waalaay la ana ñu sopp sëriñ sooy bu mbàkke def leen ni ñu màggal baay sooy abdullah sooy bo muhammadu rasulullah saadagul ay waay dañu doon wut ku baax ndeke booba waa waaw sëriñ sooy bo Mbàkke baax na déggum jaam ñi wa ah, illallah awleen malikul aqul mubin waaw waaw muhammadu rasulullah ana ñu bëgg sëñ Abdoulaat la ñu wut ku baax ay waay ndeke booba yawa ay waay sëriñ suuy bu Mbàkke baax na mbégum jaam ñi yawa illo bay Cheikh Abdoulaat suuy bu bay sëñ Seex Sey bayu sëriñ dañu doon wut ku baax won leen ndeke booba yawa ay waay sëriñ sooy bu mbàkke baax na ndegum jaam ñi yawa laa ilaa ana ñu bëgg sëriñ sooy bu def leen ñu màggal borom sariya bàyyi sëñ am sa too bàyyi sa abdulaat baax waa dugul waxtu su ko defee lakkal fallu yaa muxtaar أيوة يا سيد الورى عليك سلام الله يا من المصلى إلا الله مالك الأخ المبين محمد رسول الله صادق الوقت seen loxo ja kaw dañu doon wut ku baax wax leen dañu loolu woon ana ñu sopp sëñ sooy bu dañu doonu baayu sëriñ am saatu dañu doonu baayu Cheikh Ablaat dañu doonu wut ku baax ay waay ndeke booba yawaa sëriñ sooy bu Mbàkke baax na mbégum jaam ñi yawaa laa ilaa illallah مالك الحق المبين محمد رسول الله